xeexam la moom mooy kàndaaw ke de waaw yëfa yëfam la xeex bi yëfam la ba xam bu wàccee fii danañ ko may fu mu ko yëfee mais yëfam la <laughs> loolu coow ñoo daa wax ñëwal rek rek coow li yëpp na li ñuy wax ne Ousmane Ngom day dox tànk jàmm yooyu nee na Ousmane Ngom ko doon dox du ci benn chance du ko ci am te loolu sax amul chance dégg nga ma de mm-hmm. Dakar Times si ñëw ak ñun ci ko deret ni ak moom nguur gi waaw waaw mu baa na ko wax nee na le roi yoruba Macky Sall yoruba la ko tuddee le roi yoruba yoruba waaw waaw nga réew mi nan lay dundee Macky Sall daal bu yeewoo xam nga ni boo yeewoo sa humeur bu dee da ngaa teel a tëdd boo yeewoo da ngay sawar bu boo yeewoo sa yaram bi day façon ak yooyu pour nga yeewoo rek c'est tout un problème. état daal moom daal daal bu yeewoo humeur bi ni mu mel. loolu la réew mi waaw kay jeex na nii lay comporté woo Macky Sall toog ci kaw justice bi di jox ordre juge yi magistrat yi assemblée nationale moom loo aye ay njërëm mm. lii la waaji wax waay wari jël réew mi rek def ko foncier loolu la wax le roi Yoruba mi toog def lu waaw ah, dégg la Sénégal ñëwoon ñun ci géej gi dagg tas yaakaaru waa Ndar def na fa dégâts yu doy waar. 24 mm. heures ci boppam nañu géej ga mer. way songu armée ya nekk ci armée lu caaka jaaya yenn ci ay géej ya nekk géej Ndar goxu mbaaj ak Ndar tuuti am na sax ay blessé. Mm-hmm. le soleil yéen kaay ñëwoon ñun ci deer bi deer baa ngi nii dégg nga ñaata milliards dolliwaat na de. ay milliards waaw. dix yeneen yeneen fukki milliards waaw waaw Jeannette Jeannette Mancel Diouf responsable APR Grand Yoff moom moom gëm na ni moom Macky Sall moom mën naa gañe Grand Yoff am deuxième mandat waaw ndaw si loolu la wax ah, sa xalaat rek ku ne sa xalaat waaw ku ne sa xalaat sa xalaat ndax dañ la koy nangu naka naka tës bi